gaalu sunna koste na fii wax bi mooy tiwaawanoo cey ko maar balaa bi fa may waaw dootu géer duwaawanoo cey ko maar balaa bi fa may dootu géer duwaawanoo takk na fii yoonu diine tàll na fii jaar si leen tiwaawanoo jëngu maam banaani fa may waaw konti leen tiwaawanoo jëngu maam banaani fa may konti leen tiwaawanoo am na mawdi sii ngi teeru fa ñoo cheikhul xalifa ngi وعمود سينجي شيخ الخلفانجي وعمود سينجي شيخ الحاج منصور وعمود سينجي شيخ الحاج منصور وعمود سينجي شيخ الحاج عبدو محمد سيدي شيخ الحاج عبد محمد سيدي شيخ الحاج حبي محمد سيدي شيخ الحاج حبي محمد سيدي في رفيع خلفاني في رفيع ci kumar banaan si fiño dootu géej waaw waaw ci kumar banaan li fa mbay waaw dootu géej kumar banaan li fa mbay dootu géej bi yóbbu fay ñam ah tarkaal la ngeen ñëwaat nii si jumaa ji fas ngeen joxe ay ñam lan moo waral lii ak lii lan mooy sabab bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp mbokk yi nga xam ne ñoo daje Tiwaawan fii di nuyu suñu xalifa général Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour ñaan yàlla mu yokk fanam may ko wér yàlla may ko mottali naalam bi jumaa ju mag ji nga xam ne moom la tàmbali yàlla na ko yàlla may mu yeggale ko jiite si ay jumaa yu bëree bëree bëri ñu ànd koog moom balaa déwén si heure bi yàlla nañ ko inigré ci barke yonent bi salaahu alayhi wa di nuyu rakam ju baax Serigne Maodo si da baax di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan ba naa li ñu am seen kër maam yëpp yàlla mottali leen ko ñii ñooy waa mouvement ànd doyloo Serigne Babacar Sy nga xam ne li leen tax a jog mooy ànd liggéeyal tarixa bi ànd liggéeyal Seydi Aboubacar moo tax ñu jël mouvement bi tuddee ko ànd doyloo Serigne Babacar Sy lii moo nekk seen première génn muy si ziara général bi nga xam ne mouvement bi buñ ko créé ak léegi matagul sax si mois mais gars yi génn nañu jàpp nañu ci ñëpp ngi àndandoo ñëw ba nu xëyee dem nañ suñu kër sëriñ Cheikh Al Hadj Abdou Aziz yóbbu fa ay ñam ak ndox ñëwaat fii nag si jumaa ji fas yéene naa joxaat mbokki jullit yi nga xam ne ñoo fi tase li nga xam ne moom la ñu dajale suñu wërsëg muy ndox muy lekk lépp loo xam ne rek. dañ koy def fii ngir dimbale jaam yàlla yi ku nekk gis na nu mu tàngee métti na lool si tàngaay bi si li nga xam ne moom la fi gan yi dajale mouvement bi nag moo ngi nii mooy mouvement ànd doyloo Serigne Babacar Sy moom la mouvement bi yaatal nañ suñuy bunt képp koo xam ne pare nga pour ànd ak ñun ñu liggéeyal Serigne Babacar Sy teg ko ci dëgg te ko si fulla teg ko si fayda ndax sëriñ baba Sy rek moo ñu ñor leneen ñoruñu te Serigne Babacar Sy radiyallahu taala ñu ngi ñaan képp koo xam ne ñëw nga fii tey yal na yàlla nangul la si ziyaara ci barke ba ba Sy lépp lu fi ñëw. ay moyen la laaj. maanaam loolu tey maanaam na ba xam association ñoo dugg seen xaalis wala da ngeen a am ay yeneen yoo xamante ni tey ñooñu ñoo leen di indil ay ay ay ay cotisation waaw ay moyen la laaj waaye ñu ànd ko ak ay jàmbaar ñoo xam ne si mouvement bi la ñu nekk nekk ay xale nekk ñoo xam ne tey ñoom ñoo jàpp di góor di jigéen ñi nga xam ne ñoo si gannaaw. kenn dimbalewuñu ci ñun ñoo jël suñu ñàkk suñuy dërëm suñu ñaat dërëm suñuy fukki dërëm suñu juróomi dërëm dajale ko ngir ñëw àndandoo fii te lépp nag ñun talaguñu suñu bopp nañu tal gani Seydi Aboubacar yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii tey ngir siyaara Seydi Aboubacar ci siyaara généralam bii nga xam ne moom la woote ñu ñëw àndandoo si si si si pas ndax pas rek moo am solo ñu àndandoo suñu pas-pas ñëw seq ko ak suñuy mbokki taalibe séq ko ak suñuy mbokk julit séq ko ak suñuy mbokk ñi nga xamne ñom lañu bokk ak pas-pas bi ñu and ak ñom ñew fi ci jumaa ji fas jox li nga xamne mom lañu am donte mënuñ ko dajal waye liñu am ci suñu doole donte dañuy miiraat suñu bopp dinañ ko bayyi fi def ko ngir julit ñi def ko ngir ñi nga xamne ne ñoo fi ñëw ngir siyaré borom boné kaare gor gui tedd gi ñuy ñaan nak yalla yalla defal ñu ci yiw yalla yalla defal ñu ci kawe lu kawe suñu njort lépp luñ ci séntu rek yal nañu ko yàlla defal mu doon yàllaay kese di ñaanal ñëpp jàmm. boo xoolee soxna yi fi teew yi tey ñoo ëpp góor yàlla yi ñooñu nga xamante ne ñoo ñëw teew fi tey ak mbooloo mi ngeen fi dajale mbooloo moom fan ngeen ko jëlee ak ñooñu lan nga leen di ñaax tey. waa damay nuyoo d'abord euh, di wax ni macha allah euh, comme ni ngeen ko waxee rek gis ngeen taxawaayu jigéen ñi. Euh, yàlla def na ni man lañ jiital ma nekk président d'organisation jigéen te depuis ba ñu waajee juillet général bi ba tey gis nañ seen taxawaay parce que yemul ñu rek ñun jigéen ñi yemul ñu rek ci group bu mag bi dañoo créé ci beneen petit groupe boo xam ci suuf la euh, ñi nga xam ne ñun soxna mouvement ànd dooloo sëñ Babacar Sy ñun ñoo ko créé nekk fa te nekkuñu fa tamit pour euh, créer groupe bi tamit di xoolante non non dañ koo créé parce que euh, li yàlla def parce que ku si nekk ci ñun am na fi mu jógee ñëw ku nek amna am na ko ñew euh koo ñëw le fait que ñu créé groupe bi day tax ñu gëna am connaissance té connaissance bi boo amé day tax ñu gëna a té yalla yàlla def na tamit ñu teg ay ay idée ñoom ay idée yo xam ne nañ ko ci groupe bi pour lo xam dañu euh, développer développé groupe bu mag bi muy mouvement euh, doyloo sëñ Babacar Sy ñu créé groupe bo xam dañu am suñu ben caisse bo xam personnel la bi nga xam ne ñi ñoko ko nga xam tay tey jii bu ñu amee programme Tiwaawan wala fu nga xam tarixa bi rek woote na fa ëtt bi

ku tudd président aussi tudd président ku tudd ñooñu ñëpp tudd mouvement mu mel ni mouvement bi ni muy doxee boo xoolee ba ci biir métti na ay ndaw rek ñoo fi nekk te boobu ba léegi ñoo ngi dajale seen i fukk ak seen i juróom ñooñu maanaam après boo leen di xool ban ñeewantal nga am si ñoom waaw du ma ni ñeewantal parce que euh, lu ñuy def dafa luñ ko pour kenn voilà cofeel bi ñu am ci tarixa bi ñu bokk la ak euh, cofeel bi ñu am ci sëriñ Babacar si la moo tax lépp luñ ci def rek ñun après duñ ko yëg day doon day mel zéro ci ñun voilà su ko defee dañuy dañuy leen ñax rek ñu gën a jàpp bañ xaar kenn aussi voilà bañ a xaar kenn ku leen jox ñu xam ne loolu la. ku pour lu jëm ci wàllum groupe bi moom comme ni ko président waxee rek ibbi nañ porte ñëpp voilà ku bëgg a bokk rek intégré wu ci groupe bi yaatal nañ la di la wax dong dalal jàmm xam ni lenn dong lañu bëgg mooy ku ñu ñëw ànd ak ñun dooleel ñu ba suñu mouvement jëm ci kanam ñu koy dégg fu sori. voilà di wax ni ibil nañ ñëpp yaatal nañ ñëpp aussi. léegi boo doon joxe numéro ban numéro nga ñuy jox comme ñi nga xamante ne ñu ngi koy seetaan si site internet bi ñu bëgg a dugg si groupe bi ban numéro la ñuy jaar pour mën a am accès si groupe bi. waaw su ko defee comme que man maay euh, présidente bi damay joxe sama numéro 76 601 56 54 incha allah ku ma ci woo ku ne dina ma di nga intégré ci groupe bi. 76. 601. 601. 56. 56. 54. 54. kon ñoo ko déggandoo ah mu mel ni lii moo fi amoon tey ñu ànd ceeg ndawi Serigne Babacar Sy ah ñu ñëwoon tey ziar général def ay berndel def ay teraanga dem seeti suñu xalifa ñu fekk fa waajuram mu ñaanal ñu tatagal ñu dalal ñu ñu kontaan lool macha allah kon dañuy joxante dox daje rek ñu continuer ci liggéey bi ba ci kanam.

takk na fii yoonu diine tàll na fii jaar si leen tiwaawanoo